allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñuy topp ci waxtaanu suba si ci waxtu wi fas yéene nañu ànd ak yéen jukkil leen buntu bañ a nar a sëf buntu buñ doon waxtaan ak yéen démb ñu ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala an yajalana min allazina yastamiuuna alqawla fa yattabiuuna ahsana ñaan yàlla suñu boroom yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañ ci tànn la ci gën a rafet waaye dañ ci topp la ci gën a jekk incha allah bi iznihi subhaanahu wa taala mu di leen fàttali ne rek kàddu boroom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullah qaala xasanul basri rahimahullah ibnu aadam innama anta ayyaamun kullama zahaba yowman zahaba baadu mbokk yi boroom xam-xam bi di ne di xasanul basri rahimahullah nee na yow doomu aadama bi de xamal ne yow bés nga sa dund bi ay fan lañu sa dund bi ngay dund ay bés lañu xamal ne bépp bés ba ñëw jaar jàll am na lu wàññeeku ci sa dund bi kon war nga taxaw seetaat sa bopp bés ya nga xamante ne yaa ngi koy dund te ñuy jaar di jàll di dem dootuñu ñëwaat ñàkk ñëw boobu dootoo leen mën a dab kon lépp li nga war a def ci bés boobu war nga kaa bàyyi xel bépp li nga war a def ci bés boobu war nga kaa seet seetaat ba tax na mu ne la xamal ne yow doomu aadama bi de yow sa dund bi yëpp ay fan yuy ñëw la di jaar di jàll di dem kon xamal ne bépp fan ba ñëw jaar jàll xamal ne am na lu wàññeeku ci sa dund bi moo tax mu ne la ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyamun xamul ne yow sa dund bi yëpp fan yuy ñëw di jaar di jàll la ba tax na xamal kullama zahaba yawman bépp ba ñëw ba jàll jàll bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baadu ko am na lenn lu dindeeku ci sa dund bi ndegam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla xamal la boroom xam-xam bi di nettali ni te nga nekk di dund société bi nga xamante ne danga fa nekk ak say nawle danga ka bokk ak ña nga fay dundandoor te ñu am àq ci yow kon na nga sàmm àq yooyu yow mi topp ci réew mi fm 97.5 nañ leen àndandoor déglu ak yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee askanu jullit bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ne ñu xaqul muslimi ala muslimin xamsun aqu jullit ci mbokku jullitam yonent bi nee juróom ndongo la bu ci jiitu mu teg ci ne raddu salaam fay nuyu ñaareel bi wa iyadatul marit di dem nemmee ko feebar ñetteel bi wa itbaa janaza dem topp néew bañ koy rob ñeenteel bi way ijaabatu daawat woote ba sa mbokk woote nanka wuyu juróomeel bi wa tasmitu aatis ba yàlla namee yiwu ci biir jullit ñi roof ngelaw ba mu tisooli bu sante yàlla danga ko war a wax ne yarhamukallah yàlla daldi wesaare yiw boobu seen biir yeni neen ndax dafa am ñaan ba ngeen di ñaanalante ñaan woowu ngeen di jokkalante seen biir ci pencum jullit ñi gannaaw bu yàlla dogalee kenn ci ñoom mu tisóoli lam ciy teg na ko yonentu jàngale bu ko defee nii yow mi dégg loolu mu wax dafa am leneen loo koy wax yow it mu doon yiw bi nga xamante ne ci mbaaxu yàlla ci jullit ñi mbaaxu yàlla ci këru waa diiney islaam moo tax mu di leen ko jox temps en kon mu jiital si ne xaqul muslim ala muslimin aqu jullit ci mbokk jullitam nee na xamsun juróom la bu ci jiitu sallallahu alayhi wa mu daldi ñu si baaxee nañu raddu salaam mbokk sa mbokk julit bu la rombee wala mu ñëw sa kër wala mu fekk la bërëb bu la ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu danga ko war a ne ko wa aleykum assalaam wa rahmatullahi lii du affaire lii du affaire arab nuyoo wi mooy nuyoo waa arjanna amul benn nuyoo bu gën a sell nuyoo bi ñun nuyoo occidentaux yañu àbba ñu di ko nuyoo suñu biir suñu diggante ñu defe loolu mooy civilisation la nuyoo boobu ay kàddu la ay baat la ya ñuy sànni ci ngelaw kenn xamul lu ñuy signifier du ñaan nuyoo yi ñuy wesaare suñu biir ñu ni neen bu ñu xoolee vrai sens su nuyoo boobu dañuy gis ne tiggin bi sax amut sens ndax yonent bi sallallahu sallam mi yàlla jox nuyoo bi nga xamante ne ñaan la jóge ko ci yow mi koy wax jëmale ko ci ki nga koy wax waaye ba léegi ñaan la jóge ko ci ki nga wax kooku tamit di la ko delloo nuyu bi mooy lan raddu salaam nanga nga fay nuyoo bi nga xamante ne jàmm la ku la ne assalaamu aleykum yal na jàmmi yàlla nekk ci yow wa rahmatullahi ak wa barakaatuhu ak barkeem yow it noonu nga koy tontu ne ko wa aleykum salaam yal na jàmmi yàlla nekk ci yow wa rahmatullahi ak yërmandeem wa barakaatuhu ak barkeem ñaanal nga ki nga nuyu fay na la nuyu moom it ñaanal na la loolu buñ ko séqee suñu diggante ku ñu romb ñu ñaanal ko lii bu ñuy fay nuyu mu ñaanal ñu lii xanaa lii mooy nuyu bi nga xamante ne moo am sens tontu bi mooy waawaaw nuyu bi kañ mooy gën ci nuyu yi waaye nag lawkaanu yaalamuun aka neexoon nit ñi xamee ko nii wallahi nit ñi xamee ko nii waaye c'est dommage dangay dem ci yenn nit ñi nga di leen nuyu ñu di la xool fekk waxoo leen kàddu ya ñu tàmm di dégg moom lañuy ñuy tiitaroo moom lañuy ñuy bëggee te sansu nuyoo boobu noonu la yàlla xam ñu doyloo loolu rek waaye kenn xamul lu mu doon ñu bàyyi fi nuyoo bi nga xamante ne jàmm ngay ñaanal jëmmale ko koo koy wax bu lay delloo moom it jàmm la lay ñaanal ngeen ñaanalante jàmm bu yàlla nangoo seen ñaan woowu ngeen di échanger seeni biir jamono yu nuyoo kenn ku nekk day ëmbal moromam jàmm kenn ku nekk day am jàmm waaye ñi jël nuyoo yooyu tege ko fee ni tege di wax leneen lu wuteeg lañu suñu yonent bi jàngal war nañoo seetaat suñu bopp yal nañu yàlla yërëm moo tax borom bi ne yonent bi ne. àqu jullit ci mbokk jullitam juróom la bu ci jiitu raddu salaam mooy di fay nuyu ku la nuyu nanga ko fay waxu ku la jox loxo de dañ la ku la nuyu nuyu bi nag mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa jàmm yàlla nekk ci yow ak yërmandim ak barkeem loolu du njëlbeen ba ñaareel ba yonent bi sallallahu alayhi ñu ne moo ñu ne wa iyadatul marid sa mbokku jullit boo déggee ne dafa tawat yaram wi dafa sutanti war ngaa sol sa dàll séq ab jéego dem fekki ko fa ma nekk nga nuyu ko nga seet ko ñaanal ko moom it mu ñaanal la waaw day gën a diggante bi day gën a rataxal mbokkoo bi day gën a rataxal xame bi day gën a rataxal xaritoo bi day gën a rataxal diggante bi cofeel ak mbëggeel waaw rawatina nga lamba sa poos am li nga génnee teg ko ci loxoom waaye nag bu mu fekk ne booy dem nga jaar fa nga war a duy mbuus yoo xamante ne dinga fa mun a def li nga xamante ne mën na kaa jëfandikoo ci xeetu meññeef yi nga xamante ne wérgu yaramam da kay soxla loolu yëpp xeetu manifeste sa mbëggeel la ci moom won ko ne nattu bi nga nekkee nii li la yàlla teg nii du li nga jënd ci marché bi du li nga jënd ci bitik du li nga jënd ci magasin yàlla la ko namma teg mu teg la ko kon man it maa ngi ànd ak yow di la ko jàppale ci anam wi moo tax ma ñëw seet si la moo tax ma andiwaale lii waaye nag téye lii waaw kañ su ko defee mit yaram bi bu fekkee ne dafa nekkoon ci benn niveau geste bu noobul ba nga jëflanteeg moom geste boobu da koy apaiser mititu yaram bi feebar bi dafa am fu mu nekkoon waaye geste bu noobul bala yonentu bi jàngal nga defee ko ni da koy wàccee jëlee ko niveau bi nga ko fekk yóbbu ko ci beneen niveau bu gën a wàcc sallallahu alayhi wa lii mooy ñaareelu àq diggante jullit ak mbokkam doo dégg ne diw dafa feebar nga naan du man doon tooñ déedéet diw dafa feebar waaw du man la doon saaga déedéet diw dafa feebar nga ne ñaw <laughs> gisagul dara déedéet kenn di wax loolu sa mbokku jullit diw dafa feebar ah yal na ko yàlla saafara waay yal ko ko yàlla téggil waaw kañ fu mu ne mu ngi këram demal seeti ko fu mu ne entraîné nañ ko hôpital demal seeti ko waaw boo ko mënut a jox dara waaye fexeel nga taxawee ko ci njabootam taxawaay bi nga xamante ne ku la ko taxawee yow dina la neex yow it nga defee nii sallallahu alayhi wa moo ñu jàngal ak julit ci mbokk julitam nee nañu ñetteel bi mooy wa itbaa'il janaza boo déggee ne mbokk jullit génn na àddina nga gunjee ci këram bu mujj bi ñaanal ko yàlla magfira ak rahma ñaanal ko yàlla ko yàlla jéggal yàlla na nga séq ab jéego dem gunjee ci këram bu mujj bi ñaanal ko yàlla loolu nga ko defal loolu mooy sa àq loolu mooy àqam ci yow yow bés bu la waxtu bi dabee yow it nga ginn àddina du ñàkk ku la ko defal dina doon lalay neex te loolu mooy lalay gënal ba tax na koo ko defal loolu mooy aq ki dem ci yow yow bés ba yàlla jëlee ci kaw suuf si képp ku la koy defal loolu mooy sa akk ci kooku moo tax yonentu bi dugal ko ci àqu jullit ci moroomu jullitam juróomi mu placé ci ñetteel bi wa itbaa'i janaza topp niiw ba faatu te mu doon mbokk bi nga xamante ne mbokk jullit la sallallahu alayhi wa sallam xamal jikko bu noowul wi ñeenteel bi mu teg ci ne daawa wa ijabatu daawa mooy mbokk jullit saa yum la woowee ci lépp li nga xamante ne tax na mu woola ci moo xam bànneex la moo xam safaanu bànneex la demal wuyu ko nga jàppale ko ci bés boobee boo amee takk bu amee ngénte boo amee tudd boo amee xataa dëj sax waaw demal jàppale ko ci bés boobee bu la woowee tamit ci soxla wuyu ko ci waaw waaye nag suñu jamono ñun xadis bi dañ kaa dañ kaa dañ kaa desee dégg waaw am na waxtu yoo xamante ne waxtu yu événement da nga gis ku woo nit sax mu jël téléphone jox ko keneen ne ko nekkuma fi allahu akbar xanaa yëgoo ne yonent bi nee na jullit ak mbokkam bokk na ci bula la woowee nga wuyu ko nga jël sa téléphone def ko mode avion ku la woo jot xanaa déggoo yonent bi nee na àq jullit ak mbokk jullitam bokk na ci bula la woowee nga wuyu ko sallallahu alayhi wa sallam wax ni xanaa yow déggoo ko yow mi ñuy déglu ci waxtaanu suba ci fii ci réew mi FM 97.5 nañu bokk xam ne lii la yonent bi ne bokk na ci àqu julit wa ijaabatu daawa nanga wuyu woote bam lay woo moo xam soxla la moo xam dafa xewle mu woo moo xam dafa am tiis naqar mu woo moo xam woote bu munti doon wuyu ko ci woote woowee bul jox téléphone keneen ne ko wax ko ne nekkuma fi bul jël sa téléphone def ko mode avion ku la woo du jot nañu ragal yàlla ci suñuy mbokk julit juróomeel bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tegtal mu ne ñu wa tasmiitul aatis mooy bu yàlla namee ci kuréelu julit ci jotaayu julit kenn daal di bu waxee la ko yonentu bi jàngal mooy na wax alhamdulillah maa ngi sant yàlla gannaaw bu mu beesalee sama nokki walla gannaaw bu mu beesalee sama noowin waaw nu may nokkee ngelaw ba may dugal di ko génnee gannaaw bi ko yàlla beesalee maa ngi koy sant yàlla ndax loolu bu la ko joxee pour nga defal ko sa bopp doo ko man kon moom moo def si yow organ boo xamante ne saa yow tisoolee rek xamal ne sa nokkin bi ngay nokkee beesalaat na ko renouveler na ko mettre na ko en su ko defee danga ko ci war a sant jamono jooju nga naan alhamdulillah képp ku dégg sant yàlla boobu nga tuddu moom lam la war a wax mooy yarhamukallah yal na la yàlla yërëm yow it nga daldi di ñaanal ki ne yal la yàlla yërëm nga ne ko yaxfirallahu lii wa lakum wala nga ne ko xufirallahu li walakum yal na la yàlla yërëm yal na la yàlla sutural yal la yàlla jéggal te mu defal ma ko nga teg si ne wa yuslih baalakum yal na yàlla orienté seeni mébét yal yàlla jubal seeni yéene loolu jullit ñi ñu ko échanger seeni biir amut beneen diine bu ko am amul leneen la am comme ndegem suñu diini islaam moo am jikko bu noobul binimel suñu yonent bi borom jikko ju kawe bi borom jikko ju rafet bi ki yàlla wax ne wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil moo ñu jàngal jikko ju noobul binimel kon yow mi ñuy topp ci waxtaanu suba ci fii ci réew mi fm 97.5 nañ leen bokk xerewlu bàyyi xel xadis bi ñu teg ko suñu kanam xadis bi mooy xadis bi nga xamante ne képp ku salloo jikko ya yenentu bi ne ak jullit ci moromu jullitam juróom yi la kon nañ leen bokk teg ko suñu kanam bàyyi ko xel wottu ko daal di sàmm wanteeg ndigle ba yenentu bi joxe ci xadis bi sallallahu alayhi wa sallam léegi moom yenentu boobu sallallahu alayhi wa moo ñuy baaxee ci ngéneel yi nga xamante ne daanoo ko doon ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa te yàlla suñu borom tabaraka wa dafa bëgg saa su ne di ko ñaan ñaan bi nga xamante ne amul kenn ku la koy defal amul kenn ki ko mun a def amul ci kenn kanka mën a ñaan ku dul ci borom bi tabaraka wa moo tax jëlee nañ ci xadis bi ci abi hurayrata di sahaabi bu mag radiallahu anhu nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qaal atuhibbuuna an tajtahidu fi du'a qulu allahumma a'inni an allahumma a'inna ala dik ala shukrika wa zikrika wa husni ibadatik abi hurayrata radiallahu anhu nee na yenentu bi sallallahu alayhi wa dafa laaj nee na moo moo ne atuhibbuuna ba bëgg ngeen an tajtahidu di góor-góorlu fi duaa ci ñaan mel ni ñëpp a waawa bëgg na ñuy góor-góorlu ci ñaan de di si góorgóorlu bu baax sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu tegtal benn ñaan bu digg dóomu ñaan bi gàttut guddut daanaka dafa digg dóomu moo tax mu ne ñu xuulu nangeen wax ne allahumma buur yàlla a inna nang ñu jàppandalal ala shukurika ñu di la sant saa su ne wa zikrika ñu di la fàttaleku saa su ne di la tudd saa su ne wa xusni ibadatika waaye nga jàppandalal ñu ñuy rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla yeñ lay jaamu ndax mbokk yi bu la yàlla jàppalalee nga di ko sant saa ne mu jàppandalal la nga di ko fàttaliku saa su ne di tudd saa waaye mu jàppandalal la bi léegi ngay rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla yankay jamu ah yaakaar war naa am say mbir ndegem yàlla borom bi tabaraka wa kot moom dong moom rek moo yore kon ñaan ko ko mu defal la ko ndax si moom nga ko war a mën a amee ba tax na ci moom dong ko nga war a mën a sàkkoo moom dong moo la ko war a mën a defal ba tax na sahaabi bi di abi hurayrata radiyallahu anhu nee na anna nabiya sallallahu alayhi wa qaal naka suñu yonent bi sallallahu a atuhibbuuna moo ne baxam buggu ngeen an tajtahidu fi du'aa'i buggu ngeen di góor-góorlu ci ñaan mel ni ñëpp ko ne waaw waaw yow mi yàlla yónni bëgg nañ ko de yonent bi ne xuulu na ngeen wax ne allahumma buur yàlla buur bu kawe bi allahumma buur yàlla yow ñu moom ñu ngi lay ñaan ainna yàlla nga ñu dimbale nga jàppandalal ñu ala shukurika ñu di la tudd ñu di la sant ñu di la delloo njukkal saa ne waaye yàlla nga ñu dimbali jàppandalal ñu wa zikrika ñu di la tudd saa su ne ñuy bàkk sa tur di tudd say melokaan yu kaw yi wa xusni ibadatika waaye yal na nga ñu jàppandalal yal nga ñu dimbali ñu di la war a mën a rafetal bépp jaamu yàlla yañ lay jaam yàlla nga ñu jàppandalal ñu rafetal ko ñu bañ si rax dara lu ci bokkul ñu defee ko comme nag ko sa yonent jàngale sallallahu alayhi wa kon ñu nit ñu koy talal suñu yoxo di ko ñaan di ko ne allahumma ainna ala shukrika wa zikrika wa xusni ibadatik allahumma ainna ala shukrika wa zikrika wa xusni ibadatik yàlla ñu yàlla jàppandalal dimbali ñu xeetali ñu ñu di ko sant saa su ne xéewal yam ñu defal kenn mënu koo matale waaye sant ko rek mooy lañu war waa yàlla ñu yàlla jàppandalal tamit ñu di ko fàttaliku ñu di ko tudd saa su ne suñu làmmeñ yàlla bu mu wow ci tudd yàlla yàlla na suñuy làmmeñee di tooy xeb ci tudd yàlla subhaanahu wa taala waaye yàlla ñu yàlla jàppandalal tamit ñu di rafetal mboolem xeetu jaamu yàlla yam ñu sant ñu di ko defe kom na ko yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa ndax lépp lu yonent bi jàngale mooy la yàlla bëgg moo tax borom bi ne ci alquran wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu lépp lu leen yonent bi dikkee lépp lu leen yonent bi àndil jox leen ko na ngeen ko jël wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu mu leen tere na ngeen ko moytu na ngeen ko sore kon suñu jaamu yàlla yi yan na ak njàngale yonent bi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi amin ya jaalana allahu wa iyaakum min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana mbokk yi yàlla yàlla boole si ñi nga xamante ne bu ñu déggee kàddu dañuy tànnal la ci gën a rafet waaye dañuy jëfandikoo lu ci gën a baax waxtaan bi jeexagul suñu mbokk journaliste yi war a joxe xibaar ñoo taxaw war leen jëbbal béréb bi ñu di leen ñaanal yàlla ak borom kër gi yal na leen yàlla taxaw yal na yàlla suqali kër gi yéen mi doon teewlu tamit lépp rafet si kàddu gi ñu sante ko borom bi lépp lu ci dëng matadi doomu aadama ak gàttum alwa ñu ñaan yàlla suñu borom yal yàlla matal lépp lu ci njuumte amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبركاته